très cher ami internaute de la Sen Série TV maa ngi leen di nuyu di leen remercier bu baax a euh, boo xam ni euh, lim koy won mooy que ni dafa dee doomam euh, ñëw di ko ñaanal mu mel ni nag depuis un certain moment cauchemar yi ni da koy def waaye à chaque fois bu ko defee rek réalité bi la koy indil parce que bi muy njëkkee def cauchemar bu ni dafa def ñu ne ko mënoo am doom bi mu demee loolu la commerçant bi wax deuxième fois bi euh, ñu ko euh, li ko cauchemar bi woon mooy que ni euh, dina am doom te bi mu demee aussi ñu consulter ko loolu lañ ko wax tey nag mu daal di gént am doom waaye nag dee ba doom bi nag di ko ñaanal te loolu bu amee yaakaar naa dina métti ba tax na nag mu tiit ci nelaw bay jooy mais heureusement ba xalil toujours rek ci wetam lay nekk di ko consoler ñu jàll ci na Guèye moom nag instant yi dafa taxaw temm ndax jàpp na ni doomam Khady Thiam li mu nekkee mu daal di koy ñaanal pour doomam delluwaat ci sagoom waaye itam pour Khady mën a bàyyi nga xam ni moo di eh, Tidiane loolu nag indi na coow ci kër gi ba tax na mu dal ci kaw eh, Leila ndax jàpp na ni Leila moo fexe rek ba Khady Thiam eh, nekk ci li mu nekk ba noppi créé scandale bu mag a mag ci kër gi comme ni mu ko tàmm di defee mu mel ni kon moom Nabou Guèye fu mu nekk rek jàmm du dafa bëgg di créer ay problème saa su ne ñu jàll ci Sadikh Sadikh nag moom jamono ji ñu toll amatul benn espoir que ni rek naa jotaat ci Awa Cheikh mu mel ni kon moom jàpp na ni instant yi jeex na tàkk ndax seen idda benn fan bi ci des yaakaarul ni mën na see jotaat ki nga xam ni moo di Awa Cheikh waaye ki nga xam ni moo di Père Ndiouga moom jàpp na ni rien n'est encore perdu ba tax na nag mu koy daal rek di ko euh, dëfal waaye nag di ko euh, rassurer euh, comme papa nekk rek nu muy def ak doomam waaye Leila moom elle est convaincue ni Awa Cheikh bu dellu si wàcc ay loxoom te sax bu ko Awa Cheikh naroon moom moo ko koy tere parce que jàpp na ni ki nga xam ni moo di Sadikh dafa rek violent ndax ku bàyyiwul sa jabar ji nga xam ni dafa ëmb ba diis doo bàyyi sa beneen jabar kon moom Leila foofu dafa juum ndax euh, nit da ngay éviter gis teel na yat ba damm na wala nag li nga foog nga jàpp ne loolu moo am parce que tey li mu gisoon ci diggante en ci diggante Sadikh ak jooja plutôt loolee dara amu ci ñu jàll ci Tidiane moom nag euh, xamal na Khady Thiam Ousseynou moo ko doon fayal jàngam ba tax na mu am problème tey pour def examen waaye nag loolu Khady Thiam mere na ci Tidiane euh, ndax jàpp na ni Tidiane daf ko nëbbal secret wala sax da koo daal di ñàkk li nga xam ni doon na ko am ci Ousseynou même bu fekkee ni que am am yi yemul waaye préféré na sacrifier boppam lépp lu mu am mu daal di koy fayalee Khady Thiam mu bañ a sentir ki nga xam ni moo di absence Ousseynou ñu jàll ci Sadikh moom nag ñëw ci aw di ko réaffirmer mbëggeelam waaye di ko gën a xamal erreur yi mu defoon dootu ko mës a defati ci àdduna waaye mel na li mu wax saful aw benn yoon parce que sax jotu koo tontu ci noonu la kilifa yi ñëw te bi kilifa yi ñëwee itam aw Cheikh ku ko gis xam ni parewul sax pour nangu daal di delluwaat ak Sadikh ñu jàll moom nag dafa rek daal di am lu ko métti trop am lu ko métti ci xolam ba tax na mu xas Tidiane ba mu ràpp ndax Tidiane dafa ñëw di ko laaj xaalis boo xam ni da ko doon dajale bu yàgg ba tey pour daal di ciy liggéey euh, bu koo jox Khady Thiam muy loo xam ni nag euh, yaay bu mu doonoon itam di yow ndax benn yaay du nangu sa doom di hypothéquer avenir am pour jigéen loolu benn euh, yaay mënu koo cautionné benn waajur mënu koo cautionné waaye papa ki nga xam ni moo ji Tidiane moom it même bu fekkee ni ko comprendre na Tidiane itam jàpp na ni il en parce que sa mbëggeel boo ko topp toppee wala sa xol boo ko toppee laa dugal ci loo xam ne ëllëg di nga ko euh, rëccu ñu jàll si joojo euh, moom nag yaakaar naa dafa euh, nekk koo xam ni ku doyadi la ndax doyadi weesuwul dem ba ci sa doomu wujju di wujje ak moom di wax ak moom yenn kàddu yi koo xam ni xale bu ndaw la ba tax kooku di la jàll baat ndax joojo bi mu ñëwee di wax ak buso buso moom it ni mu ko waxee rek noonu la ton noonu la ko tontoo ba tax na joojo daal di mer ba bëgg koo dóor waaye faa dafa ñëw di ko défendre mais joojo moom moom it dafa rek daal di menacer faa ndax moom ba tey dafa jàpp ni faa moo yàq sëy jëm Layla nag moom it comprendrewul waaye Faa it moo ko gën a ñàkk a comprendre ndax buñ lay jiñ loo xam ni defoo ko doo ko foog doo comprendre ndax doo xam sa nu mu demee ñu jàll ci bàjjen kóor yi ak Bakir ñoom nag na te tey moom a am problème ndax moom moo war a fay euh, warugar bi nga na Faa Faa nag moom gis nañ ni euh, dafa am biir buy métti ba tax na Cédric yóbbu ko hôpital waaye lim jëlee hôpital neexut mu mel ni kon cauchemar bu mu defoon moo ñëwaat ci kawam parce que liñ ko xamal mooy grossesse à la nekk di euh, nekk di subir nii euh, te nag bu avorté wul mën na koo indil ay complications waaye fa mel na ni moom fi mu toll nii am doom jaral na ko jaral goo xamante que jaral na ko sax ñàkk bakkanam ndax bugul sax wax ci ak jëkkëram mu koy euh, ndax xam na ni bu ko waxee ki nga xam ni moo di xalil ay préféré mu avorté que ni moom fa muy am loraange wala muy ñàkk bakkanam waaye fa moom doom bàyyi ci bi dem moo ko gënal ndax tey dafa taxaw temm rek pour am doom ñu jàll ci beneen séquence mu mel ni Ibnu Thiam commencé na nag àndaat ak sagoom ndax euh, bi mu waxtaanee ak Père Ndiouga waxu ni dëgg la wax ak moom ndax problème bi am kër Père Ndiouga na ko ni mbirum fiiraange moo ko undu te Père nangu na ko waaye nag wax na ko itam mbëggeel rek moo mën a juboole waat as euh, kër gi waaye moom Ibnu Thiam bëggatul dégg kuy wax mbëggeel ndax moom jàpp na ni mbëggeel euh, lim ko def moom pare na ci mbëggeel ñu jàll ci Père Ndiouga moom nag mi conseiller Bousso mi nga xam ni daa war a dem kër yaayam daal di fay dëkk ngir nag mu xam ni normalement ñoom ñaar ñëpp la waroon a dëkkal waaye parfois situation day demee noo xam ni euh, da rek daal di def loo xam ni gënalu la ba tax na nekk sa kër yaay itam warul tax nga fàtte sa papa ndax wayjur wayjur rek la ñu jàll ci joojo joojo nag su moyuwul problème bu mag dina ko am ndax Seydou euh, ñëw na rek euh, ci Leila yaakaaroon ni joojo defar na seen diggante waaye gis na ni Leila gis na ni joojo da ko utiliser woon juste pour am lu mu bëgg waaye nag li mu bëgg du ma sa am parce que Leila da koo daal di rejeté ñu jàll ci Sadiq moom nag mën naa ni Euh, bu Awa Cheikh bu ko jàppalewul dellu siwaat ci ay loxoom mën naa ñàkk xelam euh, mën naa dof tàggale kook sagoom parce que bu mu toog di waxtu te waxtu bi yëpp wax ak Awa Cheikh la wala nag di xool euh, mook Awa Cheikh bu ñu nekkoon ni muy demee mu mel ni kon moom Sadikh bu ñu ko jàppalewul tuuti rek dina am problème waaye gis nañ ni Marème moom it ñëw na ay problème am gën a yokkaat ci problème mu Sadikh waaye sa Sadikh heureusement ba moom day fàtte ay problème am ngir problème mu nit ñi ndax à chaque fois ku ci am problème day taxaw di la jàppale te moom kenn xoolul ko neex bare bari la nekk waaye gis nañ ni ki nga xam ni moo di Nabou Guèye bi mu ñibsee moom it ay euh, xuloo wala werante indi ci kër gi ba tax na mu dal ci kaw mu fayoo dina métti trop ci yow ndax tey Nabou Guèye li ko Marème fàttali métti na ko ba tax mu ni day ñaan baat parce que jàpp na ni dafa sonn ci kër gi ñu jàll ci Alpha Alpha euh, di waa ji nga xam ni mooy topp Awa moom kon nag ñuy continuer rek di ko euh, toppatoo ndax fi mu nekk sax moo ko koy fayal te bëggul mu xam ko loolu nag tax na bi Sadikh ñëwee ba gis ko ci buntu kër gi dafa ñëw attaqué ko même bu fekkee ni que nekkul woon ak Awa Cheikh nekk ci buntu kër gi rek tax na mu euh, ñàkk sagoom ba di xeex ak moom mu mel ni kon moom mi nga xam ni moo di Sadikh digganteem ak Awa Cheikh àndatu ceek sagoo te nag su ma yuwul dina ko gën a yàqal ndax Awa Cheikh bëggul violence bi nga xam ni moom lay demee waaye bu soo papam la défendre jàpp na ni papam moo nekk ci dëgg ba tax mu bañatee nekk kër yaayam waaye heureusement ba Sadikh léegi bëggatul def erreur yi mu daan def ba tax na fexe na ba convaincre ko ba mu delluwaat ci yaayam ñu jàll si joojoo joojo nag moom jàpp na ni tey bu digganteem ak sa Sadikh yàqoo awa euh, ki nga xam ni moo di Faa moo tax parce que jàpp na ni vocal bi Faa la jugee woon ba na tey mu da koy euh, day fayu ba tax na mu envoyé Xalil euh, audio di ko waxal ni que Faa dafa ëmb te ëmb bi moom mi nga xam ni moo di Faa dafa jàpp ni kon moom Xalil juru moo waxu ko ko ba tey mi loo xam ni waxu yàq xel dëgg la waxu seytaane dëgg la waaye nag amaana na li ko dal moom du dal ki nga xam ni moo di euh, faa euh, parce que cas yi du ñu benn ndax euh, li tax cas yi du ñu benn joojo même bu fekkee ni que dañ koo fenal itam fen boobu noonu dëgg la ndax li ñu wax moom moo am alors que nag li ñu waxal faa loolee dara amu ci dëgg moo njëkk te dëgg moo mujj ñu jeexal ak faa moom nag dafa léegi dafa nerveuse di xas xalil di ko wax yoo xam ni yu kenn xamut la di ko wax wax yi doy waar loolu nag li koy wane rek mooy xolam dafa neexul ndax liñ ko xamal ni rek ëmb bi mu ëmb à risque la mu mel ni moom faa dafa jàpp ni moom dafa matul lu waroon a doon ndax jàpp na ni di neexal nit ñi di leen jox ay cadeau wala di leen jox ñu lekk la mën na loo xam ne ko métti la ba tax na ëmbam bi mu bëgg a xeex ak moom ba mu aboutir waaye nag du yomb parce que gis nañ ni dugg ci toilette la def rek di génn daal di daanu te loolu day wane encore une fois que complication am na ci ëmb bi bu ci xalil xamee lu toll ni tarafatay al ni dina yàq ëmb bi ndax du bëgg benn yoon saa di sacrifier wu boo xam juddoogul kon boo ko internet yi fu la yem ci épisode 60 bu série Baabel ma jox leen dig daje ci beneen épisode waaye laata boobu way leen di abonné ci seen série TV te bu leen fàtte ba ci cloche notification bi ngeen di jot suñu vidéo yi à temps réel ngeen jëf